nuy nañ leen yéen mbokku internet yeeg téléspectateurs yi ñuy suivre fii ci Dakar Actu TV ak Dakar Actu point com amaan mbégte bu baax a baax euh, en exclusivité ah dikkaat ak yéen ci seen émission en ligne euh, ñuy dalal euh, monsieur le ministre conseiller di maire de la commune de Médina monsieur Bamba Fall monsieur le maire monsieur le ministre ñu ngi lay gërëm di la sant ci disponibilité di la bàyyi ngay nuyoog askan bi. jërëjëf Badara maa ngi nuyu waa Dakar Actu yëpp nag commencé ko sëriñ jaar ci ñëpp di rafetlu sen liggéey di nuyu wa senegal di nuyu wa medina ak wa Dakar tey félicité tey nak may am mbégte di félicité Antoine diom parce que won nañu ni deuk bi amna na sécurité won nañu ni suñuy force de l'ordre taxaw nañu ni won nañu ni ken du menacer république naan élection de fi li bu amul li am won nañu tamit suñuy force de défense am nañu njëriñ donc euh, yaakaar naa ni won nañ tamit ni li xewoon mois de mars mbettel la woon rek wante Sénégal armée am Sénégal police Sénégal gendarmerie luñu lu dan ko kon bok mo koy féliciter ci lolu parce que rassurer na population bi rassurer na ñëpp ni élection inshallah dina am té xoqatal du ci am rassurer rassuré ñëpp tamit ni kuñ fi convoqué di police di nga wuy ji té xoqatal boobu day daal di deñ may rafet lolu diko encourager diko féliciter di féliciter chef de l'État aussi parce que taxaw bi mu taxaw won ñëpp ni négocier au moins dara du fi am élection dina am ci jàmm ak salam té benn compromis du ko tenir euh, man position boobu dama koy rafetlu loolu la gëm ci état. tout à fait voilà alors mais monsieur le ministre di ñu nangul né euh, moment bi enregistré émission bi la tension reste vive même dans la capitale sénégalaise. mais lolo, ci démocratie la bok réew mu am démocratie réew yu bax yi dañ fay jaar France gis nga gilets jaunes yi te gis nga fi mu mujj tay Sénégal jamonoy Abdoulaye wadd gis nañ ko ay yoon yoon yoon jamonoy Diouf gis nañ ko ay yoon yoon Sidi Lamine sax taxaw na fi naan place Tahrir loolu ak démocratie ñoo ànd Macky Sall yéen ngi rappelé bi ñu dajee monument mu gàddu mbeer gàddoom bi loolu ci marche démocratie la bokk rapport de force tiitalaate nappaate xuppaate natt sa bopp yooyu ci rapp ci démocratie la bokk mais jamono ju ci tool rek la ca war da nga koy def ku ne xamaat boppam tout à fait euh, mais monsieur le ministre li li jaaxal si nit ñi moment bi ñuy enregistré nii sax ñu ñuy dénombré ne am na bu bu bu ñàkk bakkanam kolobaan am na keneen koo xam ci éponge ba mu ne woon lañ sànni grenade lacrymogène ba mu jaar fa ñak bakanam buñ ko comparer ak manifestation bi amone jamono yé obélisque ba gouverneur ak préfet autorisé ko ñu def ko ci jàmm ñëpp ñibbi si est-ce que ça en valait le coup bu tey jii nii ñu dal di koy euh, interdiraat si dañ ko war a dire. sérieusement. nous dañu won sax arrêté ñen ñi parce que Ousmane Sonko lay wax bu taxawé ni manifestation bu amaté que responsable yi bon ko daajoon fekk fay milliards euh presque bo xolé day indi trouble à l'ordre public parce que yag nañ fi annuler manifestation pour risque de trouble à l'ordre public. Si manifestation bu ngeen dajji ñi da ngeen fay fekk milliard mu ngi leen di inviter ci manifestation ñu dajji loolu té ñom seen objectif tay du rassemblement tay dañu mobiliser woon pour jëm palais mais tay nous natt fuñu buñ naan personnes bi passé amuñu trois mille tey lu mat mille ay bande yu doon sax ci nek di situation bu chaotique pour profiter ci sàcc mais police maîtriser ne leen té ñun tamit ku nek sa commune jël nga sa waa commune jël say xale yi commune ñu taxawal la gis nga mbedd mi li fi ne xale yi Medina yëpp lañoo génn ni seen dëkk kenn du ko yàq mu jaral leen seen su fajar la ñuy ñëw te fi lañ nar a fanaan quartier yu bari def nañu ko tamit communes yu bari def nañu ko donc tey gàddu ay nit loolu xam nañu ko man yàgg naa ñoom yàgg jamonoy wadd def nañ ko ba tey man ak Barthélemy ànd nañu Saint-Lazare Karfa Karim Wade yu xoo ko def nañ ko mosquée omarienne def nañ ko feneen n'est-ce pas marche de la faim n'est-ce pas buntu wal fajiri ba maa ngi rappelé loolu c'était en 2009 xaw ma 2008 yooyu yëpp jaar nañu ci donc lan la du xeexu militant de xeexu bandi la da yor sa xaalis xam fi bandi yi nekk nga fay leen ñu ne saltel leen ma loolu yomb na képp ku am xaalis mën nga ko booy déstabiliser nga paasal ay ñu jóge yeneen région ak yeneen département ñu ñëw mais xam nga ku mel ni yow ku mel ni man du génn ci mbedd bi naan da koy taal. te yaakaar nañu ay ay ay militants wu Pastef la ñooñu. ah du ñàkk ay militants coalition yi ci nekk mais bu dee ñooñu rek ñooy militant kon ñoom seen militant mootul gagné quartier néew nañu lool. parce que tey bu fekkee ne yaa ngi woote cent mille am à peu près deux mille cinq cent néew na trop man Medina rek bi may gagné commune bi neuf mille voix la am. Médina kese bi may gagné commune bi cinq cent et quelques voix la am bu dee da def manifestation mënoo am trois mille.

te mel man mi ko a mobiliser. yaa ngi def situation géographique population bi amone fofu noonu kéro quoi. kon ça dire que vous avez parfaitement suivi les événements il va amoon. oui bien sûr. Mhm. je suis c'est presque, presque sama commune la presque. parce que dama la bëggoon ñu yag nañ organiser fofu. nest ce pas jamono jojo ñoo bokkoon coalition ñun ñëpp jamono jojo bu ñu fa dal organiser depuis Benno Siggil Sénégal da nga daan gis ñom dans soxo ñoom bàcc di taxaw dañ daan commencer fofu dem muy xawa dem ba rue 25 bi place 55 mais bu dé ci triangle bobu la yem té genn wal triangle bi gas nañ ko ndax BRT bi image xam nga am na koy talalé légui image am na noo koy doublé ak noo koy tàllalee mais xam nañ ne bu fekkee à peu près motul 3000 té man rek Bamba Fall fi ci medina am naa 9500 voix té ñom ñu ñu nekk une quarantaine té té ku jël parole ni kii ni Kaffrine laa jógee kii ni Casamance muy mobilisation nationale donc yaakaar naa te ñoom ñu liggéey woon deux 200 000 personnes. Mhm. année deux cent tout à fait tout à fait mënul nekk. tout à fait alors Légui, euh, euh, monsieur monsieur monsieur le ministre li jëm léegi ci manifestation bi je peux comprendre que autorité bi mën manifestation kenn du dem place de l'Obélisque ak mais dem ba ci kër leader bi barricadé ko dès les premières heures de la matinée doomam war a gën a ji ni ko déstabiliser mu war a gën a dem julli ji juma ñu interdire ko dans un pays qui se dit pays démocratique d'accord nga ci si d'accord na ci lu nar a indi musiba li koy saafara amul prix tay lolu bok na ci li nga ni régler problème bi ba parce que sur xalé yi def lu la neex parce que da ngeen da ngeen da ngeen ko Sonko nous quartier bi yeb ben kër la fa am. mais ñeneen ñi am kër yi dend ak ñom nak ñom droit am chaque jour nga dajale fa say militant ba ñooñu seen vie c'est mais ñom sonn nañu dekk Sonko ci quartier sonal na quartier donc il faut que ñu régler nous mu comme ni sommes les waa chaque jour nous devons faire lacrymogène nous nous ñu fa feebar am asthmatique dëkk bi mënul pourquoi le conseil constitutionnel bi ñëpp ni li Dakar du avons ba pourquoi conseil constitutionnel validé parce que un intérêt

nan pour parce que liste de bu ko ci bu suppléant mais ñom de xamul nan la liste gis liste nationale bobu 53 députés. la mais lo qui gagné gagné, gagné gagné ci plus de 40 parce que liste bi du raw proportionnel 53 yi mom la liste ku nekk dafa kon loo gagné gagné gagné mënoo jeexal liste bi même boo gagné à 80, 70%, soixante dix pour députés Les bu dee 40, la ñoom dañoo xamul ni du comme liste bi nga xam ne liste département bi nga xam ni da ngay jël lépp nga xam ne suppléant bi remplacer le premier bi dem. bii demeewul noonu bii même musu Sénégal musul am liste suppléant qui liste nationale suppléant qui liste nationale bu nekk député musul am fenn parce que doo ko jeexal liste bi 53 la nga am ci 40 par exemple lu mu upp du 40 am nga 13 yu tok di xaar 13 yooyu ñooy suppléants yi ñëk yi foog 13 yooyu dem ba jeex tak nga doga a liste suppléant benen bi loolu ñun ñi xamul du comme élection maire nga xamné day am liste majoritaire am proportionnel nga xamné majoritaire bi raw gardu la yaay jël lépp bu ci kenn manqué da ngay dem ci suppléant bi nga jël fa kenn mais bu dee maire bi tamit liste proportionnel la kooku proportionnel bi mëno mom lepp nak dang ko bokk yeneen coalition yi compétir dafa am quota bo ci mom am lu lu bari lo dessal bala ngay dem ci le suppléant bi da ngay jéxali su bopum jéx tak tay bu dé ñom seen liste 50 la même bon buñu gagné won té xamna du mussa am ci aduna mënuñ ci am 40 non kenn mënu am 50 100% kenn duko am 100% xam ni kenn duko am même bo gagné à 60% wala 70% tu es avec à peu près 30 40 députés même pour dee 40 am nga 13 yo xamni ni ni bala ñu wax ci suppléants ñoo ñoo jitu suppléants yi ñooy les premiers suppléants donc amul problème parce que même les ci suppléant bu amé kenn mësul jéxal liste waxuma majoritaire de waxuma liste département de loolu amna fi ñu dé ci ben département ba jéx mais liste nationale kenn mësu ko épuiser ba mu jéx ba ngay seeti suppléant suppléant mësul dug assemblée ci liste nationale parce que chaque fois lo am ci liste bi famu yam, yem ci des nga koy topanté ba mu jéx parce que ñom dañoo japon ni bu premier bi déwé premier bi ci suppléant bale moy dugg déedéet liste bi lañu ñu ba mu jeex soga a liste suppléant bi. tout à fait alors mais monsieur le ministre monsieur le maire buñu délo tout ci ginnaaw yakaru né cioli lépp liko waral moy système de parrainage bi nga xamante dañ ko fee indi le jeu démocratique deug la dañoo wara ségg mais est-ce que waron na jar ñu tollu fii nii pour la stabilité même de ce pays yeen ñi nga xamante tay ji yeen yéen nek au commande mais parrainage bi baxna

parce que bu boobaa lu ñu gën a tasaaroo du ñu am majorité boo leen rawee benn raw mu nekk raw gàddu ñoom parrainage bi sax moo leen regroupé mais parrainage bi bu amul jàppal ni lu du du nëpp am na candidat yoo xam ni nit mën na leen a jox xaalis ñoo présenté wu joxe caution te nit leen ko jox mais mbooloo mi ñu leen moo tax parrainage bi am na foofu solo parce que au moins dina filtrer ñi nga xam ni. dañu bëgg a bokk rek pour amuser pour pour abuser amuser galerie bi mais amuñu taxaway ci réew mi. tout à fait mais mais yaakar nga né ci ci euh, niñ jëm ni ak élection yi xel mën na dal ak tension bi nga xam mom mo fi am parce que ñom nee sans ñom sen liste nationale élection du fi am. loolu wax la loolu mok politique and ñun ay jamono doon nañ ko wax mais xam nga fuñu ñu mujjoon ñun PS boycotter élection législative yoyu am nañu mandature bo xam PS amul député opposition bi ñu ñom dans ñom dañu boycotter boycotté fa la ñu mujjee woon. Sénégal bu nit di wax day mel lu bees lu doog a am non situation bi da ngeen a ni jaar nañu situation yu ko raw. sauf que ñoom waxuñ waxu boycott waxu élection du fi am lañu wax. élection motax tay ñu won nañ leen élection dina fi am ndegam tay en deux heures de temps ku ne ñoom ñun ñi doon xaar résistance ci résistance dañu mujjé une résistance chaude. ci résidence Ford la ñu mujj ñu ngi toog seen kët naan attaaye mu fàttali ma temps couvre-feu bi bi alkaati yi romb ku ne tool sa terrasse di ajee que ma seenee Bart ak Assane Diouf ci kaw. ñu dégg ni Sonko ngi naan attaaye la aussi tamit seen wàll non dama ni la forcé wu ñu génn mais kenn nañu forcé génn di maire de Dakar na ni sama bureau laa jëm ñu wax la rek Déthié Fall fi la nekkoon di wax xam nga Déthié Fall méttiwul na boo dajalee mi temps yi xaj nañ ci nekk. comment nga waaw dama ne boo dajaloon daji militant di ci far yëpp xaj nañ ci nekk te boo seetee ñoom ñu jeexal ay carrière ñoo jiitu woon ci liste boobu parce que budul bii dootu leen beneen à part Sonko peut-être parce que ay ay dëmbooj âge bi ñu am Habib Sy Malick Gakou Abibatou Mbaye mais ñu am plus de 70 ans lañ presque soixante 70 ans donc tay xalé yi ñu ngi ci seen gannaaw motax bi il faut ñu ré ci seen bop il faut ñu ngoy ci li leen jaaxal nak moy dafa am ñu ko xagnon ku mel ni bamba jey ku mel ni maasi jammi ku mel ni giraas yi ñaw bobu lañuy bañ xañ nañ leen ko trahir nañ leen tay ñok ñoo ñoo ci yam lolu kese la du leneen politique nak ak rapport de force ñoo and parce que tamit man ci ñek ak teranga man d'accord na dialogue politique ci ñek ak teranga ngeen wut consensus mais boo nee su ma du am tu défies l'État et un État doit être fort société civile d'accord ma ñom parce que tay, boo nee nañu renvoyer élection bi kon moy mooy dinaan upp baax na ci laax bu tang menace bi tax kon benen yoon ku bëgg dara da ngay menacer nan ngay def ñi nga xamni ñom n'est-ce pas ñom Thierno Bocoum ñi nga xam sen liste baax na nan ngay def ñi ne ñi nga xamni wut nañu sen parrainage jox nañu sen caution sen lepp normal na parce que benn coalition am na ñu dul bok té buñu ñu waxantee dëgg Sonko bi affaire bi amé gis ngeen ci postam bi mu def ci page Facebook mo moo wax ni problème am kat ont leur faute. Mhm. kon bu ko dem ci gannaaw mais lu ci nit société civile stabilité aussi parce que mais société civile parce que bëgg bu le président désavouer le conseil constitutionnel désavouer son ministre de l'Intérieur. homme d'État, amna mieux vaut nga mourir nga périr que parce que dem Nous xoxat femmes. Nous avons conseil constitutionnel kon li ngeen wax la femmes. Nous ko femmes. Nous avons constitution femmes. jot avons nekk ci kaw avons dama ni la Macky Sall bu Nous gannaaw ba 2024 avons gouverner lu Nous neexatu taxaw commune questionné on a trouvé un bon nombre un groupe de jeunes qui ils sont là déterminés.

mois de mars dafa fekk ñu am yeneen problème bokk problème bi am occasion génnaale mois de mars fekk ay woyu ak ay délinquants yo xamni Covid bi sonal neen ñu dajji ay. lan moo changé entre temps. entre non dama le la entre temps couvre-feu bi amagul entre temps bi climat social bi tane na xëyu ndaw yi am na lu mu ci def xalé yu bari jot nañ ci am liggéey entre temps Macky Sall gën na jege jeunesse parce que yaa ngi rappelé wu tay biñu ñu gagné Coupe d'Afrique bi xalé yi dañu dem ba palé ni na génn mu génn sargal leen. bi muy ubbi stade bi muy stade boo xam ne mosuñu ko gis xale yi dañoo kontaan te tey ñi doon wax même man daan naa ci bokk daan sànni xeer teer bi mais ñu bari nee nañ terre bi tey moom la ñuy wër parce que rapidement ñu dem ñëwaat BRT bi gis nañu lim nar a def ak corniche bi ak leneen nga gis autoroute yi mu def autoroute à péage yu bari yi mu def gis liggéey bi mu liggéey ci industrie ak mines yi donc tey da ngay sentir ni mu ngi góorgóorlu mu ngi dalal xelu askan bi ñaxtu yi wàññeeku na mu ngi dékku mu ngi waxtaan te amna période yo xamni ne na metti man dama ko daan sanni xeer mais djégé na ko légui xamna na gën naa xam état du lu way wax nga ni waw parce que lég lég nga bëgg jamm nit wax nga ni waw té état mënewu ko motax lég lég di yéne déet yi du gantu lu mënu nek la. Mmh. monsieur le maire émission bi jeex mais du ma jeexal te posé la dernière question bi nit ñi na ngi naan do daw coow ndaxte euh, préparation manifestation yi dafa la fekkoon ci mission nga écouter sa mission pour ñëw fekkee li nga xamante ni moom mooy mbir est-ce que jaroon na ko mënoon nga toog rek eggali sa mission. duma ko def de man Paris laa nekkoon démb laa ñëw parce que kaay ma xamal la nag man dama man dama man damay assumer fu ma bokk ci mouvance présidentielle bi laa bokk. Médina dafa am rôle yu muy joué te tamit place de l'Obélisque mooy fan mooy foo xam ni moo Colobane ñoo dend Colobane commune boobu ñoom gagné lañu ko gagné matul 300 voix. Médina nous gagné fi gagné plus de 5000 voix Dakar Plateau big top top, Ndoye gagné Grand Dakar bi top toppaat Jean Baptiste gagné ko kon fi avons nous sommes ñoom ñoo fi minoritaire ba la gàddul ay nit effort bi nga Nous bi ñu bëgg nous avons fait ko sànnante say lamb def man nous avons génn gis nga sama doom ci génn nous agent ak population bi tey ñëpp a génn dama leen kaay leen ñu génn défendre suñu commune ndaxte Ousmane Sonko gis nga Casamance du fa nangu lu fa yàqu Barthélemy Diaz matul maire parce que man tey sa dëkk bi nga xam ni parce que xam nga tax Barthélemy am comportement bi soo am war dafay bàyyi plus de 10 moo tax ma ko yàq mais bu doon ñun ñi nga xam ne dañuy wuti xaalis pour defare ko dëkk bi duñu ko yàq parce que tey mënoo jël impôt yi impôt nit ñi sa bos sama bos bosu keneen état bi daggale ko def ko fonds de dotation jox ko ville bi PACASEN mu jox ko ville bi muy de muy ay milliards yoo xam ne ci askan bi la jógee presque ñu ko defaree leen ko dakaar ñu defaree ko dakaar nga ànd ak ñi ko yàq yàq ko pour ëllëg ñu dagaat ñu impôt nga defaraat Dakar loolu bu naree am ñu ni président bu fekkee ni ki nga xam ne moom la ñuy sant mu aaral ñu dakaar defaral ñu dakaar moo bokk ci ñu koy yàq suñuy impôt bu ko joxati kon man d' accord ma man d' accord naa bii passé ñaan nga marche marchal rafetluwuma ñaar li sëriñu Mbàkke Mbàkke bi wax rafetluwuma ko te Khalifa Sall sama mag la mais d'accord ma comme loolu man su ma doon Khalifa Sall fa ma toog laa jug arrêté ko ndox homme d'état la bu ñuy xas tey ay Moustapha Niass di leen xas ay Idrissa Seck mais attendez ay Habib Sy toog noonu ci gannaaw mais bu ñu fontoo Aminata Mbengue nga koy xas mais xalifa Sall bi muy nekk dans les affaires boobu Idrissa Seck newu ci ma wax ne Khalifa Sall bi mu nekk ministère des relations avec les assemblées balaa boobu nekkoon na député lu yàgg ba nekk maire Grand Yoff bu leen fàtte ne Khalifa Sall moo remplacé Idriss Seck ci ministère du commerce jamonoy Diouf te bu leen fàtte Habib Simi conseiller moo conseiller technique numéro 2 ci ministère u Khalifa Sall kon Sonko buy xaste papay Barthélemy Diaz mais moom ak ñoo ñëpp te ma nga cabinet ba ca palais donc tey loolu mooy lan sa papa nekk ci mouvance présidentielle te liste député bi passé mu ngi ci liste opposition bi yow nga ni et puis Sonko man comprendre ma tay wa système bi la andal li tay wa système bi rek la andal ñim mu et puis maa ngi dégg journaliste yi naan ñu comment nga serigne bi lim wax d'accord mais Ahmed Suzanne Camara nañ ko jëli parce que dafa ni Sonko duñ ko wara ray mais dama leen di laaj journaliste yi xanaa dañoo fàtte kan mo fi ni won président yi fi jotta a bi leen war fusillé yow d'accord yow ki ni nañu fusillé président yooyu am ku nañ ko fusillé nga ne ki mu jeex la ñu war a jëlee xanaa dañoo fàtte woon ne ki ki ko wax ca kam ko jëmale kookoo njëkk nañu fusillé président yi te suñuy symbole suñu ay président nga nañ leen fusillé nañuy dëgg nañuy àtte dëgg xam nga man d'accord naa ñu ne nañu wut solution nañu seeti sëriñ si nañu waxtaan nit ñëpp rafet ñu rafeteel ko mais état d'accord ma nga ne lii bu amul boo ko deful du fi am ça c'est défier l'état gërëm nañ la monsieur le ministre conseiller monsieur le maire de la commune de Médina en exclusivité hein, ñu amoon ko par rapport ak euh, manifestation bi nga xamante ni moom moo amoon euh, jëm ci li nga xamante manifestation pour interdire à la place de la nation gërëm ko sant ko également surtout si disponibilité yi xam nañ ne amul jot mu ngi <laughs> ci mission bi mu écourté monsieur le maire Daoul ngir rek euh, ci ñi nga euh, opposition bi gërëm également technicien yi à la préparation et à la réalisation de ce tout niveau de votre émission en ligne qui vous donne rendez-vous prochainement avec un autre invité d'ici là comme nous l'information continue sur la référence Caractu. merci beaucoup